ci semaine bii ñu génn dañu am sunu ay kilifa yu fi génn àddina euh, muy euh, alaaji Youssou Diop doon chef de penc ak Tamsir Fall Mbëdd leen di ñaanal yàlla xare leen ajjana teeru leen ak njëgal di jaale it sunu mbokku senegal yi nga xam ni seen bakken rot na ci inondation yi yàlla na leen yàlla teeroog yërmande xare leen àjjana donc tey ji euh, dañu amoon xew-xew boo xam ne dañ doon tëj juróomi fan yi nga xam ni dañu mobiliser woon téeméer ak juróom fukki jeunes médinois ñu nekk ay volontaire benn pàcc bi jóge ci croix rouge benn bi jóge ci relais communautaire yi benn bi nekk les jeunesses politique ñu ànd nag jël initiative bi nga xam ne jigéenu Benno Bokk Yaakaar ñoo ko am Adja Wuli Diop jël initiative bi jiite ko ñu dajale seeni masque indi ko ne dañu koy baaxewaa waa Médina ñu ànd ak ñoom ci juróomi fan di ko joxe joxe bi nag dañu ko lal ci juróomi gox yu ñu ànd di ko doxandoo di ci waxtaan ak nit ñi et waxtaan li lim ñu ci jëlee bare na lool parce que waxtaan nañu gannaaw bi ñu docteur yi jàngalee ñoom docteur Diakhaté ñoom docteur Mal ak spécialiste Croix-Rouge boo dajeek nit ci prévention looy wax ak moom noo koy dégloo moom la ñu jëriñoo ba am lu bare lu ñu taataan ci suuf war ko mun a baaxee li ñuy woote mooy étape bi am na solo dafa fekk si yeneen yu ko jiitu woon mu doon joxe masque mu doon joxe saabu. mu doon joxe gel mu doon joxe yu ne donc nañ warul yem fii donc woo nañu responsable yëpp pour ñu ànd gën ko continuer parce que tàmbali gi ñu ngi ko amee woon ak maire Médina dans le cadre d'un plan stratégique boo xam ne lii ci la bokk ñu ànd di def prévention parce que Médina ñun ñëpp war a ànd ni ñu ko waxee ci t-shirt yi raxas leen loxo yi takk leen masque yi dandante leen fagaru aar Médina ñun ñëpp la war moo tax ñu war ci ànd di ko def donc gërëm leen bu baax a baax ci engagement bi ak détermination bi